bam jakarta day gas di dangal ko nak indi ko mere station bi nga xam moo la may teen bi ñoom noonu lañuy tudd mooy ndox mburu ak ree kon yal na yàlla yombalal leen lool lool ñoom ñoom ñu def yal na yàlla yombalal leen lool ndax loolu kër mooy dund ndax ndox mooy sababu dund lépp loo gis muy gàncax gi muy jur gi muy doomu aadama yi mburu lu tax ñu wax mburu dañoo wax mburu waaye lekk boo ko boo ko yaatalee maanaam lu doomu di lekk mooy damaa faw muy naan faw muy lekk. bokk na ci li dundal doomu aadama te mooy mbégte doomu aadama bu dëkk ci rek ci naqar ak mettit kooku yow sa dund du neex. sa dund du sax yàgg. beneen bi mooy di sàkku yéen itam ngeen ñaanal leen.

balaa nga mën a laa pour jaamu yàlla il faut nga am ndox balaa nga am loo toggee pour nga lekk il nga am ndox balaa nga am jur boo mën a xont pour mu euh, jëriñ la il faut nga am ndox donc ndox moom mooy lépp ci nit même sax sa yaram bu manqué ndox sax docteur am ci yow pexe kon nag normalement wax di ku leen ku defal ku leen ci dimbale mënu leen dara amu leen dara waaye mën leen mun ngeen nag di ko ñaanal yàlla suñu borom projet bi ñu koy euh, dox ñu koy financé ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla fay yàlla bi yàlla moo am lépp moo moon lépp yal na leen yàlla fay wax dëgg fa yàlla euh, sant na leen gërëm na leen ngeen baal ñu wax. vraiment kontaan nañ lool waaw ah, ñun ndox mi moom fu nekk léegi bu ñu tëddatee nañ nelaw bu baax waa dëgg yàlla ndax moom dañoo amoon problème ndox waaye lii moom kontaan nañ ci lool ndox moom neex na lool doxal moom neex na moom ñu ngi leen di nuyu seen sant ak tànk ngeen dox ak tànk jàmm ñu ñibbeeg jàmm salaam ndax nga tey ñun jigéen ñi dañoo sonoon ci ndox lool ndax buñ bëggoon a fóoti dañuy dem ba dëkk ak dëkk ñu dem fóoti buñ bëggoon root dañuy dem dëkk ak dëkk dem rooti suñ toogee nag ba ngeen ñu xiwal bii te ñuy sant yàlla sant leen yéen ñi ka tax ngeen gas ko dégg nga gis nga ndox mi comme sam-sam la ni mu neexee nii ñu leen di ñaan ci ko ci kanam rek ci ko ci kanam rek wa foofu rek laay yem nak <laughs> Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions sur son noble prophète euh, notre bien-aimé Mohamed alayhi wa sallam Donc aujourd'hui l'équipe de Sakuyu Action pour l'espoir a eu affaire à une descente euh, pour inaugurer le puits Ohro Halima. Donc le puits Ohro Halima est dans le village de Tokombel, dans la région de Fatik. Le, puits a été financé par l'association Au Point Sourire pour euh, le compte des, villageois. Nous demandons à la Sointara d'agréer ses œuvres et nous espérons que la réalisation de ce puits va diminuer la souffrance des populations, notamment euh, des femmes et des enfants. Donc cette eau aussi pourra être utilisée par les animaux et même euh, pour les travaux champêtres. Voilà, donc, euh, Alhamdulillah, Barakallah Fikum, Assalamu alaikum.